mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal leen ak jàmm àddina dafa gudd tànk loolee Macky Sall war na ko xam wala sax ñu ànd ak moom war nañ koo xam ñi nga xam ne jamono ji ñoo ngi leen di jàpp di leen téye ci kosox yi fa dëgg yàlla sénégalais yi ñu ngi ko ñaawlu ñaaw na lool ñaaw na lool ñi nga xam ne ñu leen jàpp di leen téye ku ci mel ni Abdou Karim Gueye Xrum Xax ak Cheikh Omar Diagne ak ki nga xam ne moo di Pape Alé ba ci tey jii rek moo ci mujj ki nga xam ne moo di Fadilou Keita mi nga xam ne moo nekk Pastef nekk membre bu Pastef daanañ ko jàpp tey jii démb ñu jàpp ki nga xam ne moo di Diop tey jii nag jàpp nañ fa Fadilou Keita waaye nag loolee daal dëgg yàlla dafa ñaaw lool ñi nga xam ne ñi ngi leen jàpp daal war na leen bàyyi Macky Sall war naa bàyyi xel ne àdduna kat dafay jeex war naa bàyyi xel ne bés day ñëw mu dee war naa bàyyi xel ne dafay jóge ñi ànd ak moom tamit war nañoo bàyyi xel ne bis day ñëw ñu faatu ñu dugal leen ci biir suuf ku nekk war ngaa bàyyi xel loole waaye nekk fi di jàpp ay nit dentee te kenn du xam lan ma waral jàpp jàpp goo xam ne nga jékki-jékki ñi la jàpp nañ la kii jàpp nañ kaa te kenn du xam lan moo tax ñu jàpp ko loolee pour lan la Sénégal daa met lool loo fi wax soo moytuwul jàpp la